la e, ci année soixante treize d'ailleurs premier album bu Star Band génn mhm. moo ci woy Chéri Coco Chéri Coco nga xam ne coon moo ko njëkk a woy après dem mais Pape Djiba moo ko moo moo ko joué Star Band mhm. mhm. a a ah oui moo fi tegoon tànk ba ne ba soixante seize il était là vraiment mu nekk un chanteur bu mag a mag a mag moom moo woy Sénégal jàmbaar moo woy buuro buuro daal yi vraiment dem bu mu demee ba presque bu muy ñibbisiwaat ci la woy Balia nga xam ne Balia aussi a fait fureur Balia Balia mhm. d'ailleurs sa Assane Ndiaye reprendre ko mais mhm. mu nekkoon chanteur bu mag a mag a mag qui a vraiment rendre ko ci hommage waaw qui a bercé ñun suñu jeunesse suñu enfance waaw donc euh, vraiment ñu ngi koy ñaaral mu continuer parce que gis nañu a la voix mhm. et c'est quelqu'un koo xam ne mën na encore dem parce que comme le vin puisque muy il se bonifie. <laughs> ouais ouais ouais. am na solo mhm. euh, euh, mais Père Ousmane parfois bu nit euh, génnee àdduna ñu bëri dañ naan yëgoon nañu ko da doon tàggoo peut-être peut-être ce que vous benn pressentiment que Thione ci jamono ji ñuy toll mi ngi mel ni ku ñuy ku ñuy junj wala ku ñu ku ñuy ku ñuy tàggu ne bés dina ñëw ñuy toog di ko def lu ni mel. waaw xam nga loolu Moustapha. loolu peut-être ñi ñi ñi ñi jegewul coon dëgg-dëgg ñoom la lool di jaaxal quoi mais je pense que ñiy toog ci plateau bi macha allah waxuma sax xale yi ñu tuuti comme Bambaali ak. Mandiaye ñoom seen seen at sax xëy na néew na lool pour ñu xam. Mhm. Mhm. mais Tafa Goudia bi Papis Ndiaye Keba Seck man mi mhm. xam nañ coon même. succès bu dee ba muy jeex ci moom sax déggoon nga mu way xam naa dinaa ma sa xeewee ji. bu boobaa ñu naan. amoon na fi temps coon mi amoon na fi temps gars am ñu daan ko wax déedéet. Mhm. mu naan leen si si si <laughs> <laughs> ñëw. donc moom prévoir na lépp. parce que aussi coon il faut ñu fàtte euh, que ni dafa yaru ci ñaari waajur yu baax yu jullite. exceptionnel. wallaahi muy alaaji Cheikh ak soxna Ndogoy Ngom ñooñu nga xam ni Mandiaye wax na ko léegi ñun Mandiaye euh, presque man sama yaay man yaruma ko quoi sama yaay mës na ma pes ndax Mandiaye parce que Mandiaye nee na xamul ndeyam xamul baayam man rek la xam. pour te diir que te munuma ni ma leen yare yéen ñëpp noonu nii laa koy yare boo xoolee amul kenn ku sama yaay jur wala sama papa ku réew mbaa ku amul diini. macha allah coon boo ko xoolee xam nga ni def nañ ci moom diine ba nga xam ni papis mi ngi koy wax léegi. papis même bu santul sekk papis xam na coon. Mhm. dafa gojaay bi bu santul sekk moo ñu gën a xam coon. Mhm. parce que non seulement dañoo dafaa gojaay boo duggee këram benn photo nga fay fekk comme woykat nekkal xaritam népp lépp dee ko jox milliard photo coon moo fa nekk jeex na am keneen du fi dugg te pourtant tout le temps léeg-léeg daa nañu am ay différence mais toujours de xoolal boo xam ne da nga naan seen yoon bu mu ci nekk ndax ñoom ñaar xamante ne donc coon boo sincère dëgg ci la lay gën a respecté ci la lay gën a bëgg parce que au moins dina xam ne am na ko ko comprendre parce que ki comprendre mooy ki sincère comme moom mais boo sincèreul coon daf lay jaaxal alors que moom man xam naa ci moom dëgër bopp goo xam ne ni mu mel non moom leer na ma ne kenn mënu ko changer te ñi nga xam ne ay sociologue lañu aussi ñu xam nit xam nañ ni nit bu dul naafeq day mel noonu parce que coon ci li mu gëm moom la gëm mm-hmm. waaw loolu nag pour nga <laughs> di mel noonu Sénégal day difficile parce que Sénégal dañoo di comme loxo sax dafa waaw dañ ko doon wax sax dañ naan bëgg nañu maslaa te maslaa foo ko fekk mooy la plupart de jog nga ci dëgg gi. ni mhm. grawul nañ ko nañ ko teg na nañ ko awaa ah, coon nag wax nga ni balaa ñoo wax lu bari naan mi ngi doon tàggoo est-ce que mi ngi doon tàggoo loolu nga ma wax. coon mhm. est-ce que amoon ngeen pressentiment boobu. mosuma mooy li ma la wax rek. mais est-ce que pressentiment bi Big Taf di wax yomboon na am. Mhm. koo xam ne. Euh, euh, bi mu commencé carrière ba tey coon mi ngi way de mhm. est-ce que kooku yomboon na ñu gis pressentiment il a resté intact non mooy li ma la wax ni moo tax boo xamul coon xëy na disparition bett na àdduna mais man xam naa ni bett ko ñii fi toog ñëpp xam nañ déedéet li si attendez parce que émission boo def euh, ci ñeenti at yu mujj yi ci ñetti at yu mujj yi xaw ma ñeenti at yu mujj mhm. boo ci def ci interview yëpp tudd na ko ci. mais kañ la woyal sax yi ci biir suuf. loo wax mu ne ah, ah, ah. surplus laa nekk di duñu woor mhm. moom mi ngi xalaat boppam <coughs> coon demal la dafa yaru avant mhm. muy nekk star di woykat alaaji sax Sekk def na ci moom diine ak ngëm yàlla xam ne lu am yàlla la boo ko xoolee moom noonu lay dunde noonu lay doxee Papis mi ngi expliqué voyage yi metti xam nga ak sir man man def naa fa douze ans xaw te grâce à Tafa mhm. euh, bi euh, euh, mm. dañu jël ki ci ligne bi tonton Ousmane kiiwuma la sax doguma la waaye dañu jël ki ci ligne bi 88 628 14 13 allo asalaamaaleykum maaleykum salaam waaw ma soxna si noo tudd ak fa ñu woowee Dieynaba Diop di wootee Gambie ñu ngi lay nuyu bu baax tur bi naka la Dieynaba Diop Dieynaba Diop waaw ñu ngi rafetlu bu baax sa woote euh, lu waraloon woote bi. xanaa nekk fan si Papa Thion. macha allah rafetlu seen plateau bi. di di ko méttit lu trop nag. ba loolu xewee ba tey mënuma am suma bopp damay nekk di xalaat. xalaat te di ko ñaanal. yal na ko mm-hmm. yàlla may jannatul firdawsi. amiin. di ko ñaar jaale doomam ci Wally Seck mm-hmm. parce que yàggul bu mu fi jógee suñu indépendance fii la ñëwoon Gambie joué fi mm-hmm. mm-hmm. di ko ñaanal yàlla yan na yàlla teg loxoom seen kaw ñoom ñëpp amiin di ko jaale famille bi yëpp ak Sénégal lépp jërëjëf di rafetlu nag plateau bi jërëjëf jërëjëf jërëjëf di nuyu waa Gambie yëpp ndax wax dëgg yàlla euh, euh, Gambie moom réew la boo xamante ne ñu bëgg faramaareen yi lañ ñu bëgg papa Thione ki njabootam ak képp kuy faramaareen rek mm. wax dëgg yàlla euh, gambien yi ñoom ñun on est redevable envers vous euh, jërëjëf waaye tamit dañuy nuyu euh, ces technicien ah ñoom Seydou ñoom ñëpp wax dëgg yàlla ñu ngi message ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax ak surtout waa Ballago TV ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi yónnee élément mm. waaye bu ci xajee rek dinañ ko daal di dugal Ousmane fi nga nekkoon ah jëlal c'est